nee na ñi gëm yàlla buñ dee xalaat tuyaaba ji nga xam ne moom la yàlla fayee ñi gëm tey topp boo ëllëgee day tax rek ñu gën a xaymeem topp yàlla gën caa farlu te nag lu la xaymeem loo topp yàlla ak farlu ci rek am na ci yow solo wal fikru xalaat it fil xiqaabi ci mbugal ga lil kuffaari ñeel yéefar ya fi naari ci sawara yëf di dana féetale mbaa dana àggale alxab de jàmba lis di jaarin jëm ci jàjju kama yasidu naka muy dollee rëhbatan ak ragal wa man xan akuk fekk minal maxaasi ca moy ya neex ma amul moroom zaaka loolu nafan ci njëriñ ba tey nee na kuy xalaat mbugal metti mi yàlla mbugal ña weddi woon ak ña moyoon kuy seet mbugal gu metti gam leen di mbugal ci sawara bu ëllëgee ku koy xalaat daal di ko xalaat di ko xalaat rek dana tax nga jàjju lool dana tax nga ragal lool tiit ba sori mooy yàlla yi te xam nga luy tax a sori mooy yàlla rek xéewal la te nag di xalaat mbugal gu metti googee dana tax a ragal yàlla ba sori ak mooy wal fikru xalaat fii sitri dumoo bi naa ci suturaa sunuy bàkkaar xunaa fii yasiidu dana dolli al istihya rus ga min fu ci moom yàlla zamanan ci diiru jamono kama yasiidu naa naka mu nuy dollee raja al xayri yaakaar aw yiw ma awanat ak ndimbal min fu tukkee ci yàlla bi xayri dayrin ci lu dul lor nee na bu dee xalaat ñu nu yàlla suturaale fii ci àdduna nga xam ne kenn ku ne xam nga ci sa bopp daanaka loo xam ne ku nit ñi xamoon di la daw te yàlla suturaal la ba kenn xamu ko neen loolu koy xalaat rek dana tax nga rus yàlla ndax ne nga mënoon naa feeñal lii te feeñalu ko rek dana tax nga gën koo rus bay moytu bu baax a baax waaye itam dana tax nga dolli koo yaakaar ci moom aw yoom ak ndimbalam ndax ku la mën a gàcceel nii te defu ko rek mën ngaa jàpp ne kon ak mbaaxam la te mbaaxam googu ni mu la sudaale tey jii bu ëllëgee it noonu lay sudaale nga jàpp ne kon ni mu la suturaale tey jii itam bu ëllëgee rek noonu la lay suturaale wal tukk si na ngay baril alfikrata xalaat fil xalaayixi ci mbindeef yi baax da taxal lumika ci gannaaw sa xamlu laa fil xaalixi du ci aji bind ji yéen gannaaw boo xamloo say farata ak say sunna ndax loolu mënta ñàkk da ngay jëmale say xalaat ci li yàlla sàkk li yàlla sàkk daal lu ci ne lëm ca lëm ci ay yi waareeka tolli gëm yàlla rek xam ne mu toll kon bari jëmmi sunu boroom ci boppam moom ëpp naa jëmale xalaat ndax jëm yàlla ci boppam xalaat mënu koo takk ka root moom kay na xalaatam jëm ci rek li yàlla sàkk ndax wa fi kulli shay'in lahu aayatun tadullu tadullu xala annahu lwaaxidu leen lu ne boo ko xalaatee gis ci yàlla xam ne yàlla rek ay buur kon day xalaat ci li ko yàlla digal nu mu koy defee ba mu baax di xalaat ci li ko yàlla aaye nam koy moytoo di xalaat ci xéewal yàlla yi ndax mu dolli koo sant di xalaat na muy def ba mucc ci àdduna ak saytaane ak bànneexu boppam ak bakkanu boppam su ko defee loolu ko loolu bu ko defee da ci amee ak sell ak dëgëru gëm nin ko waxee woon léegi wala takkunte bul nekk daa fikrat di boroomu xalaat fii faqrika ci sag ñàkk fattuk sira ba ngay baril alhamma njàqare la idan boobee waxammaka ak saw naqar nee na bu fekkee yàlla dafa laa nattoo ak ñàkk nag bul di xalaat ñàkk kim la teg ndax boo ko def bul jëmale sa xalaat ci ñàkk ki la yàlla teg ak na mettee ak di xool ña nga xam ne ñoom la yàlla def du bari le loolu boo ko defee sax day gën a naqari nga dem bay xarab yàlla dangay xool rek nga xam ne yaa ko tane ndax li ngay ñàkk-ñàkk boo xoolee sa wet gis koo xam ne lam am xëy na du jeex waaye wéradi ga ko yàlla teg te yow tegu la ko wéradi ga tax na bu sañoon joxe lam am lépp lépp lépp taw wér ak jàmm boo seetee loolu rek dellu santaat yàlla aw zulmi shaxsin wala tooñu jëmm zaalimin ju di aju tooñ fatuk sira ba ngay baril bay na kumaa ci seen diggante xiqdan ak coxor wa xaysan ak mer fasbiran na nga muñ rek bu la nit tooñee itam tooñ gu metti bul nekk di ko xalaat ndax boo dee xalaat lim na tooñee day tax nga gën koo soxore gën koo mere soxol gën a tàng ci moom fekkee mënoo ko baal ngir yàlla daal muñal rek te bàyyi ko yàlla wala tuddim te bul sa xarit fikk rek sa xalaat fii tool yi xumuri ci yàggu dund fatatlu ba ba ngay sàkku fatatlu ba ba ngay sàkku aljamha dajale adduna wa daalika te loolee yaduru day lor li ànd xoo ngir naka moom yow bàyyi dana sànq alxumra dund ga gamaa yu saw yu fu ni muy niig niig loo ni mu yeexamtalu loo almuti aju topp yàlla ji inintamaa ndem askanu na la xoo jëm ca moom ni itam bul di xalaat ne man kuy gudd fan lay doon ndax boo dee xalaat na nga fi yàgg lu amutoon dana ñëw day waral yaar day tax a bari bàkkaar tax a néew yu topp yàlla ndax loo bëgg a def ci lu baax ne naa xaar ba nàngam bu nàngamee ma def ko ndax yaa ngi yaakaar fan wu guddoo bàkkaar yi daanaka doo ko moytu ndax da ngay wax ne rek danaa ko mën a tuub bala maa faatu moo tax xalaat fan wu gudd moom ak loo amutoon mi ngi ñëw day waral rek ñëwuk topp yàlla ak bari ay bàkkaar waalam xamal bi anna asla zuhdin ci naka cosaanal dëddu àdduna wa waraaxin akuk sàmm taxa xudul xal bi mooy nemmi ko xol ba bi ixraajil bidaay ci génne bidaaya mais na xamal ne dëddu àdduna ak sàmm ak mboolem yu baax yi yaa ngi koy amee ci dina mi ko sa xol lu ci ne toq ci du aw yiw rek nga gaaw dàq ko ndax boo gaawute dàq day toog daal dëkk benn yoon kon nag sooy boo farlu ci lépp lu toq ci sam xel lu nuru xeetu bidaa mbaalu aay rek mbaalu amul njariñ rek nga fexe ba dàq ko mu génn fi saasa te jëmale sa xol ci lu baax loolu daal ci la ñuy amee ak dëddu ci la ñuy amee ak sàmm ci la ñuy amee leeru xol ci la ñuy amee wépp yiw wa afdalul jihaad yi ngën ji jihaad man xul fikri mooy tere xalaat ga min kulima ci lépp loo xam ne lam yaa ni jëriñut ku la dëxëriñ ci bépp jamono jihaad yi nga xam ne moo gën ci mboolem xeeti jihaad yi mooy di jéem a téye sa xalaat mu bañ a jëm ci lu amul njariñ fu mu toll rek di xalaat lu lay amal njariñ loolu daal moom jihaad la boo xam ne bu metti la waaye moo gën ci mboolem xeeti jihaad yi kon del seet sam xel la cay toq bu dee aw yiw bu ñuy jëfee nga gaaw jëfe ko bu dee safaan ba nga gaaw dàq ko te tuub te wóor la ne moom lu baax lu ne ñu ngi koy amee ci te sa xol bañ caa xalaat dara lu aay di toq ci am xelam moom ci lu aay te waxiwu ko jëfewu ko neexu ko itam ci xolam moom kenn du ko ca bindal dara bu dee xalaat lu aay nag ba dogu ci faaw daa koy def ba ñu war ko caa bindal bàkkaar mu wëlbati ko nag rëccu tuub daal di koy bàyyi bañ koo def kon dañ koy jégal bindal ko tuyaa bay bàyyi gam bàyyi lu bon loolee waaye nag bu fekkee loolee mu dogu woon te muy lu aay noonu la ca dogoo woon dogal bi ci bopp rek moo ko forut ba loolu amut kooku moom du tee ñu bindal ko ko rek bàkkaar fexe ba lépp loo xalaat ci sam xel rek muy luy am njariñ fii ci àdduna ba fële ci àllaaxira sax ci loolu rek di ca góorgóorlu mooy jihaad ji gën ci mboolem xeeti jihaad yi waxwa waaye moom it kat ashadduhu mooy gën jaa taram mooy gën jaa metteem fa man koo xam ne laa yafaluhu du ko def fii xëyrihaa ci lu dul julli laa yamaluhu du ko mën a jëf fi salaatu ci biirug julli nee bu ñu nee fexe ba sa xalaat bañu jëm ci lu amul njariñ moo gën ci xeeti jihaad yi ne say boo teg ci ne ba tey nag moo gën a metti ci xeeti jihaad yi te it bu fekkee doo ko jéem ca ba nga tàmbaleegut a julli ba tey boo nekkee ci biir julli ga doo ko man te faaw rek faaw rek war nga di ko jéem bala ngaa dugg ci biirug julli mooy tax boo duggee ci julli gi man ko waaye ndegam doo ko jéem ca ba nga tàmbaleegul julli bu àggee julli ga bëgg koo def itam doo ko man fal tuddim na ngay saxal alfikrata xalaat ga yaa xamimi yow sama xarit fil ardi ci suuf si wa samaay ak asamaan wan nujoomi ak biddiw yi wa samsi ak jant bi wal xamari ak weer wa wal asjaari ak garab ya wal maay ak ndox ma wan naari ak sawara wa wa fil axjaari ak ca doj ya wa xëyrihaa ak yu dul ñoom kal layli ni ki guddi wa nahaari ak bëccëg danal kon nga am yaqinal xal bi loolu xol bil anwaar yi ànd ak leer balaa tuddal yu bare bari yoo xam ne mënees na caa jëmale sa xalaat xa tudd na asamaan ak suuf tudd na jant ak weer ak biddiw yi tudd na garab yi ak ndox ak sawara ak doj yi bu tuddaal yi sax guddeeg bëccëg mu ne ak yu bokkut ak ñoom lépp lu yàlla sàkk rek boo ci xalaatee gis ci yàlla yokku cëg wéetal yàlla yokku ca gëm yokku ca leer moo tax mu nekkoon na ngay saxal say xalaat ci yi mu tudd nii ak yépp yu demee ne ñoom faslu li ab dog la fi sadaxat ci saraxe wa infaaq ak dundale mooy def sa àll ci lu yàlla gërëm wasilati raximi ak jokku bokk daa waxoon ne saraxe ak def sa àll ci yoonu yàlla ak jokku bokk yu mel nii bokk na ci yi nga mën a feccalee sa jamono ba sa waxtu du jàll rek noonu ci neen mu bëgg ci indi ab dog boo xam ne nag da nga ci dolli koo xam njariñul saraxe ak def sa alal ci yoonu yàlla ak jokko bokk ni mu réye ak ni mu baree tuyaaba am mat tasadduqu ndaal saraxe maxal infaaxi ànd ak dundale fa jamaha boole na ñoom ñaar alxayraat yiw ya bittifaaxin ci ak dëppoo te kullima nit ki lépp loo xam ne yàkkoon dana nekk nafaal muslimiina di njariñal jullit ña wasilati raximi ak jokku bokk ay don ba tey ku laxiin ci bépp waxtu ne saraxe ak def sa alal ci yoonu yàlla man nga ne ñoom ñaar ëmb nañ mbooleem xeeti yiw yépp yépp yépp yépp mooy lu baax loo bëgg rek xamal ne yaar yi ëmb na ko te mooy saraxe ngir yàlla ak def sa alal ci yoonu yàlla ba tey lépp loo xam ne soo ko defee rek jullit ñi jariñu ci xamal ne loolee mën nga caa amee yi wune jokk bokk yi noonu ba tey mën nga caa amee yi wune waqiila waxees na ne in xadara dem teew na yowmul baari bisub aji bind ji wa duriba te gàllees as siraatu siraat fawqa naari ci kaw sawara wa kaa bada te jànkoonteeg alwara mbindeef yi aljawaa njàqare la wal xummata ak tiis wa naadaa boote maanaam jéebtaane munaadin aji woote maanaam aji jéebtaane ne ay na ahlul xidmati ana ñuñ liggéeyal ga lil muslimina ñel julit ña fa ajaaboo te ñu tontu ajmax yi na mbir muñu mboole seen fa yu maroona te def leen digal lil jinaani ñu jëm àjjana mosri añi na mbir mu ñu way gaaw bi ay yuqaala ci bu dee fi wax laxum ñeel leen um doo wéy leen aljannata àjjana bi xëy bi xëyri meex natin ci lul ab coono wa xëyri fitnat ak lul fitna kon nag fax dim humoo na nga leen liggéeyal turoon boole seen li wacc illaahi ngir jëm yàlla faq dong bilaa man nin ci lu ak ñax ñax mooy dafa kenn lu baax ba noppi di ko wax ak waxaat bul ko nag man nangam ak nàngam maal defal nàngam maal defal nàngam loolu mooy ñax wala tanahin du caageenu daytal maanaam bañ am yemukaay mu ne nee nañu bu bis penc ñëwee bañ jël siraat gàll ko ci kaw sawara ñëpp war caa jéggi jàll ku jëm sawara ak ku jëm ajana ci yam mooy jaarukaay bi nit ñi maase ci jàq ak tiit ak amu tiis ak jaaxle dana am ku jéptaane ci kaw ci ndigalul yàlla ne waaw ana ñi daal liggéeyal jullit ñi su ko defee ku ca bokkoon na nga daal tontu ne man man man dina leen yéen nag ay ca dem leen àjjana fi saasay saas rek daal leen dem àjjana duñu am benn coono duñu am benn fitna kon nag teel farlu ci foo toll di liggéeyal jullit ñi mooy rek def loo xam daañu ca mën a jariñu te yàlla rek tax te kat loo leen defal bul ko gis bul jàpp ne defal nga leen dara sa bopp rek nga defal rawante na nag nga di leen jéem a ñax ci wax kenn naa ko maala nangam maala defal nangam bul ko na mën nangam déedéet moom daal foo tollu dee leen defal la nga mën ci lu baax te yàlla kese tax ba noppi nag saa yoo ko defee ba noppi rek fàtte ko mel ne mosoo koo def bul def itam ba naw ko loo def rek ci loolu say boo xeeb ko mooy bul ko wuti yemukaay teel def rek di wee wa ku nekkal mux fiyan di aji nëbb li kulimaa ñe lépp loo xam ne yasoo dana leen naqari wa kunta nga nekk mub diyan di aji feeñal kullama lépp loo xam ne yasuruhum dana leen bégloo jullit ñi moom foo toll dee leen jéem a defal lu leen di bégloo luy neex ci seeni xol ñu cay bég waaye daal del moytu feeñal dara dara loo xam ne da leen di naqari ab jullit daal moom del jéem foo toll di ko bégloo su fekkee mënoo koo bégloo nag moom na nga ko moytoo teg wenn naqar lu mu tuuti tuuti nee nañu sëñ bi daana tomb di wax ne kenn deful kenn dara kenn defalul kenn dara lu waay def rekk boppam loolu wax ju yéeme la kenn deful kenn dara kenn defalul kenn dara lu waay def rek boppam nga xam ne kon li nga defal keneen ci lu baax sa bopp nga ko defal li nga def keneen ci ab safaanit sa bopp rek nga ko def ndax ci yow rek lay dellu si benn fii ci àdduna baa rek fële ci àllaaxira waaye tooñ ba noppi moom rëcc mënta am wa kullu man képp koo xam ne waa faaka dikkal na la li ci daay ngir tablu tablu mooy ñaan rek fas bupp na nga sotti àll ci moom mataral xataay tawub may in kunta ndem nekk nga zaaxinan di boroomum koom wala tax takir te bul dakkar ci te bul denc maalan alal ilaa xadin jëm ëllëg li xaw fi darari ngir ragal lor li àndaxoo ngir naka moom yàlla subhanahu solelal naa ko lépp li yollu ci moom taxan laa kawe na huwa moom allazi mooy ka nga xam ne ataaka jox na la zaakal maa la jooje alal te faxay suma ak sarta foo fi bari le fii ci alal ja ak talafa sànk ga li wacc yi ngir jëmam ataaka mu dal lay jox moom yàlla jàlla màgg na alxalafa wuutaat ku ñëw ci yow nee na di sàkku nga dimbale ko jox ko jox jox ba mel ne taw buy sotti mooy soo ko mënee na nga ko jox jox may yu bare bari ba mel ne taw buy sotti bul ne lii daa koy denc ba ëllëg ndax xaw ma ëllëg nu muy dikkee xaw ma nu jamono yi dikkee déedéet moom daal ndegam rek fañ nga sa lor ba noppi la ca des. joxe ko ngir yàlla ndax loo joxe te yàlla tax rek yàlla moo lay wutalal mu wutu loolee ndax suñ boroom moo ne wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yuxlifuhu wa huwa xayru raasiqiin lu ngeen dundale te yàlla tax yàlla moo leen koy wutalal fadailul infaaqi ngëneeli dundule wat tasadduqi ak saraxe kathiratun aji bari la jiddan lool xalal muttafaqi ci lañu dëppoo joxe sa alal def ko ci loo xam ne lu yàlla gërëm la ak sarax ña nga xam ne ñoo loru moom ni ñu baree ay ngëneel dafa ëpp ba mënusta wax yépp yépp waaye nag nan la waxal fii yu bare bari ci yooyu wa fil xadis nekk na ci addis anna dal jalaali naka borom màgg ga yu du xilu dana dugal yowmal xam mi ci bisub njàqare ba wala ci bisub naqar wa wal ahwaali ak tiit ya bu luqumatil xub si ci tibub mburu lu toll ni ab tib ci mburu wa qabdati tamari ak ngëbub tàndarma wa kullima ak lépp loo xam ne yan faaw dana jëriñ yan faaw miskin ab miskin xadara bopp teew na talaatat ñett jànnatahoo ci ajanaam ja fayadu xuloona te ñi tàbbi fiihaa ci ajana ja bi isnin ci ndigal min ilaahil aalamiina lu bàyyikoo ci buurub mbindeef yi hum ñoom saaxibul bayti mooy boroom néeba ëllësi ka nga xam ne amara digle na bi ci saraxe wa zawjatun ak soxna muslihatun fi aji defar sarax bi faltanta bi na nga yeewu wa xaadimun akub surga yaxdimuhum bob dana leen liggéeyal wa kullu za lépp lii tafaddulul karimi ngëneelul aji tedd jee raaxi na nga sàmmonteeg almaqasa jàppukaay ba da nga gis daal ñett yàlla dugal leen àjjana bu ëllëgee te lañ joxe woon kat daa mel ne lu néew néew la woon ndax lu toll ne tibu mburu mel na ngeen dogu mburu rek mbaa nëqub tàndarma mel na nga buub tàndarma rek mbaa lu mën a jëriñ ab miskin lu toll noonu képp da nga gis ëllëg yàlla dugal ci àjjana ñett ñi mu la wax borom kër gi nga xam ne moo liggéey andi soxna si toppatoo waajal sarax si ak kam ko jox ne ko am jot li ko kii yalwaan ñett ñëpp sarax bu néewoon a néew boo daa xeeb ba nga tollu àdduna mel ni rek lu toll ne tibb mburu dogu mburu rek mbaa nga bu tàndal ma rek yàlla dugal ci ñett ñëpp àjjana ci bis boobule loolu nag mbaaxu yàlla waxay suma tasaddaqa foofu xam ne saraxe na al insaanu nit xafisahu kon wattu ko minal balaa ci balaa arrahmaanu aji yërëme ji wa kulli miitatin ak wépp deexiin tax sulwoo dana amee bisuuyin ci ak ñaaw saraxe day tax a mucc ci balaa day tax a mucc ci deexiin wu ñaaw ka misli israarin niki kem nuuru ci ay bakkaar wa zulmin akuk tooñ yoomal woog def na ko jëf saraxe day tax yàlla musal la ci sëgg ci bakkaar sëgg sëgg ci bakkaar moom moo gën a bon lépp saraxe day tax yàlla musal la ca ba tey saraxe day tax yàlla musal la ci tooñ doomi aadama yi tooñ bokk na ci yi gën a bon ndax yonent bi nee na ak zulumu zulumaatun yawmal qiyaamati maanaam tooñ bu bis pencee tooñ day soppi ko ay lëndëm ci kanam ka nga xam ne moo daa tooñ yépp nag saraxe day tax rek yàlla musal la ci wakal xunuuti ak niki naagu yërmande saraxe day tax yàlla musal la ci naagu yërmande naagu yërmande bokk na ci gën a bon ndax bu xasee naagu yërmande du ragalati benn bàkkaar ndax day wax ne bu ma mucc moom lu ma neex naa ko def loolu nag moo tax naagu yërmande moom bon lool saraxe day tax nag nga mucc ci waka xat xi rahimi ak niki dogu bokk saraxe day tax yàlla musal la ci dogu bokk dogu bokk bokk na ci gën a aay ndax suñu boroom daa juboonteeg ak mbokk ci ku ko dog moom yàlla mu dog la ku ko jokk moom itam mu jokk ko wa baxtatil mawti ak betteeg dee wa suuil maxtami ak ñaawuk mucc saraxe day taxa mucc ci deegu bette di taxa mucc ci muj gu ñaaw sadaxatu sarax waaxidatun bu di benn xadd tadd faxu baraana mujjiñ sabaxiina juróom-ñaar fukk miitatan ci ay deexiin mina sooy ci ñaaw faaw na ngeen wattu nee na benn saraxe dong mën naa tax yàlla fekk juróom-ñaar fukki deexin yu ñaaw yu nar a xew benn saraxe tax rek yàlla fekk loolu lépp ba ak siwut wa tutfiw te muy fay al ghadaba merma wal xataaya ak ñaawteef ya itfa ama in kem fayub ndox naara dil xataaya sawaraw borom may ya ni nga xam ne moom la ndox di fayee sawara rek noonu la saraxe di fayee merum yàlla noonu lay wàccee ñaawteef yi ka saraxe waaw kon saraxe day tax mer mi yàlla mere woon doomi aadama yi rawante ne moom mooy saraxe bu fekkee fekkoon na yàlla mere ko day tax mbir moomu daal di giif ni nga xam ne rek moom la ndox di faye sawara ba tey saraxe day taxa yàlla tàggale ko ñaawteef yi jégal ko ku mel ne mosu caa jaar faaxiluhaa aji def sarax yajlis dana toog fii zillin ci ker laxaañeel sarax si qabla qadaayil xalq ci njëkk àtteb mbindeef ya xamulim kon na nga màggal fadlaha nga neelam nee na bis péncie ba nga xam ne ker dafay jafe lool ndax ker gi ñu wax liwaawul xam di yonante bi kerloo ko mokk saxaabaam ya ak keruk xaras malaaka yi kerloo ko la ko ñetteel rek mooy keruk ku daa saraxe rek la nga daa saraxe mooy soppiku ker ñëw tiim la di la keral a tax mu ne ku daa def sarax bis pencee sarax sa day topp sarax sa day soppiku ak ker moon caa toog fegoo ko tàngaay woowule wa annaha ak naka moom tuddaawaa def na saafara bihaa ca moom almarda way tawat ya saraxi day taxa am wérug yaram soo wéradee mbaa nga am ku wéradi say boo rekk di saraxe saraxe ga day tax nga wér te wérlee wa tuxfaru te def na ci jéggalee ak dunubu bakkaar ya niamat amul moroom xardan ci lebal yàlla ba tey saraxe day tax yàlla jéggal la say bakkaar kon nag dee ko def di ko lebal yàlla bu la fayee rek saxol sedd na tutaxiru dana laabal almaala alal ja wata dafa am tamuy jiñ albala bala wa kula amradin ak mboolem ay tawat saraxe day tax alal jëm bàyyi ko laab te set ba noppi itam bañ a laatu saraxe day tax yàlla dàqal la balaa ak mboolem xeet tawat yi nga xam ne mën naa jëm si ci yow kon saraxe ni muy faje jàngoro noonu la koy fegee itam ba du ñëw wa yujtalaa def na niyo fiihaa ci saraxe idxaalu xayrin tàbbal aw yiw wa suróorin ak mbégte sabataa yooyu sax na ñoom ñaar xalaa xuloobil muminina ci xoli way gëm ña yaa fatan yow ascam saraxe baax na lool ndax boo ko defee da nga dugal aw yiw ak mbégte ci xolub julit te julit moom lépp lu ko bégloo rek xolam sedd rek nu rëy rëy la fa yàlla kon nag wa saxatu risqi ak yaatu wërsëg saraxe day tax yàlla bari sa wërsëg yaatal ko yaatal wa fiiha nekk na ca moom saraxe barakatu maalin barkeb alal wal am na ak wóolu ga min jamihil mahlakati ci mboolem alkane saraxe day tax alal ja nga saraxee barkeel ba noppi na mucc dara du ko laal maanaam saraxe day tax sa alal ñoŋ dara du ko laal ba noppi itam nag am barke boole ci wa xifatul xisaabi ak wayafuk xisaab ja yowmal kura bi ci bisub njàqare ya wa siqalul misaani ak diisub balaas ba fal tax ta sib na nga sàkku tuyaaba saraxe day tax boo lëgee bu la yàlla xisaab xisaab ja woyof te yomb lool ba tey saraxe day tax bu ñuy peese sa jëfi yiw sa jëfi yiw diis lool daal di wat jëfi safaan ya ndegam am nga ay jëfi safaan summa taxfiiful jawaas yi topp woyofal jéggi ga xala siraat ci ko siraat saraxe day tax booy aw ci siraat mu yomb lool jàppandi lool warafu axla darajaati ak yëkkati gën jaakawe daraja fil mafaas yi ci texewukaay ba muy àjjana fil mafaas mooy texewukaay ba muy àjjana nee na saraxe day tax boo lëgee yàlla yëkkati see daraja foofee ci àjjana nga bokk ci ña fa am daraja yu kawe yaa kawe tadam man làmboo na moom saraxe aydan ba tey rida allahi ngërëmal yàlla waxama iblis ak naqaru iblis allah yi ni ka di kuñu rëbb assaahi kay aji juum nee na saa yoo saraxee rek boole nga yaar def nga lu yàlla gërëm def nga lu naqari iblis iblis moom naqaral ko lu rëy rëy la lu baax a baax la gërëmloo yàlla nag moom dara tollu na léegi nag boo saraxee boole nga yooyu yaar naqaral iblis def lu yàlla gërëm lu mu bëgg-bëgg fiihaa nekk na ci saraxe irtina munaa sunu màng duhaa al fuqara ñaanuk way ñàkk ña maxal masaakiin yi ànd ak miskiin yi li mën ñel ka nga xam ne xaddu sabara muñ na nee na saraxe baax na lool ndax boo saraxee faqir mbaa miskiin dalay ñaanal te ñaan yam lay ñaanal rek yàlla mën na koo nangu mu dal la loolu nag kon lu rëy rëy la fiihaa nekk na ci saraxe tabaxuful ujóori fuluk yool ya fii xadin ci ëllëg li ku lima li ku lima ñeel képp koo xam ne axlasaha sellal na sarax sa lil ahadi ngir yàlla mi kenn nee na ku saraxe te yàlla rek tax raxoo ci dara dara lu may yàlla kese kese bu la yàlla fay bu ëllëgee day fula ful yool ya rek mu baree bari lool ba yéem la wajitani boo na ngeen moytu nag itaaha joxuk sarax sa li ku liman ñeel képp koo xam ne lam yekku nekkut za taqwan di boroomu ragal